waaw sëñ bi jërëjëf ah, soo gisee man laa seen message bi numéro bi dama dugg si YouTube bi après ma gis ngay dégg ngay wax mais sa wax ji moom wax dëgg yàlla tubaarikàlla ah, rafet na trop te maa ngi koy rafetlu tamit waaw te di la ñaanal yàlla yàlla nga yàgg wax si rajo de jox nit ñi waaw sa xalaat rafet na trop mais tamit jamono biñ toll nii parce ñoo jamono. bii ju ñoo fi ne adduna ñu ñoo fi ne dañuy waxtaan ni jiboo ci kàddu te tamit xale jigéen ñi am na xale jigéen ñi nga xam ne nii daal man daal verament xaw ma daal ban façon ni lañ ban façon ni ne wax dëgg yàlla parce que li nga wax noonu tamit dëgg la Facebook li si xas dugg jeex na te góor ñi tamit am na góor ñoo xam ne nii tamit vraiment nañu sàng jigéen ñi sutura nit doo ko topp nit doo ko topp te ñi ñëpp benn lañ waaw si yàlla lañ bàyyi ko te si yàlla la ñuy delluwaat kon nañ xol bu baax lu ñuy def nañ xool bu baax lu ñuy def nañu ragal yàlla delloo suñ xel si yàlla ñu xam ne adduna bi ñun dañuy dem ba fi kon nag lépp lu nga xam ne nii tey jii maanaam mu si àdduna nañ ko jéem a rafetal man na xañ na peut-être am na loo xam ne nii sonn naa ko dund si àdduna mais tamit aussi métti na mais dafa jeex waaw. mais tamit maa ngi xelal képp koo xam ne nii tey jii si àdduna bi am na loo xam ne nii maanaam dara dara dara dara dara ko dara dara nga def ko waaw bu dara dara nga def ko parce que àdduna amul solo àdduna amul solo nañu góorgóorlu nag di muñlante di dimbalante di soppante xalaat waaw man de loolu mooy sama xalaat bu gàtt te tamit di moytu yenn détails yu bëri yu ñu siy dugg. waaw ci nga xëy nekk sa liberté bopp jàmm ji ko gën a neex amul waaw jàmm ji ko gën a neex amul waaw di ñaanal nag euh, bépp Sénégal wala adduna yëpp maa ngi ñaanal réew amul jàmm yàlla may leen jàmm suñ Sénégal gii nag yàlla yàlla gën a wàccee jàmm ci barki Cheikhul Khadim yaa ngi jëf jërëjëf sa wax bi rafet na trop wax dëgg yàlla yaa ngi jëf waay di leen bala ak yéen ñëpp si weeru koor bi. lépp luñ ci jaamu yal nañu ko yàlla nangul lépp luñ ci bëgg yal nañu ko yàlla may yal ñu fekkee ay ati at barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi na ngeen def yéen si jàmm bu baax a baax maa ngi leen si yar ah, di leen di jégalu tamit di leen balo <coughs> ak si war ak wéeru koor yi barke Seexul Xadim waaw eh, man li ma gis jamono yuñ toll nii daf ma daf parce que soo xoolee ñun ay jullit lañ ñun ñoo war a di muñlante di toog di waxtaan ñu neen suñu biir instant yi jamono yuñ toll ni man vraiment li ma si gis dama jaaxal trop trop trop trop doomu aadama tey nga nekk ak nit lépp lu nga xam ne seq nga ko moom normalement aduna bum neex wala aduna bum naqari ba nga jël génne ko di ko publier loolu c'est pas normal loolu rafetul parce que nit ku ne war ngay xam ne war ngay xalaat ne yaa ngi yor rakk bu jigéen wala yaa ngi yor mag bu jigéen te jigéen dañ ko war sutural jigéen ko sutural yàlla sutural la mais jamono yu toll nii lu nga xam ne daal vraiment rafetul quoi si réewu Sénégal wax dëgg yàlla rafetul am na yu nga xam ne nii daal c'est vraiment man su ma soñoon nit waru tourné sa di ko def nit dañu xool suñu diggante ak yàlla dañu ragal yàlla ñu xam ne bàmmeel xam na trop te nit war ngay xalaat dee te dee lépp lu nga xam ne ni tey ji yaa ngi def soo dee di ko fekk sa bàmmeel yaay du la fa fekk pap du la fa fekk nijaay du la fa fekk sa jëf rek moo fekk kon war na ñu def lu baax waaw ñi du def lu baax nag war nañoo jéem a def lu baax ñi ñi nga xam ne nii ne ñi ngi def ñi nga xam ne tey ñu ngi def lu baax nañ ko gën a yokk suñ gisee nit nekk si lu nga xam ne naka suñu ñu woo ko yedd ko mais di def yenn yi dara rafetul ay julli lañ nañ xool bu baax lu ñu def nañu xool suñu diggante ak yàlla ñu xool suñu diggante ak tëruwaayu bàmmeel bàmmeel xat na te lëndam asalaamaaleykum wa rahmatullah. question bu ma si am di doole mooy fi mu toll nii. jamono bi dafa yaaxu jigéen ñi dañoo bëgg àdduna dañoo bëgg àdduna dañoo bëgg àdduna torop ba tax na koo ci woo ak foo ko mënta woo mu wuyu si la yow ab xale bu ndaw nga toll si ay dix-huit nga xool paa boo xam ne am na fanweeri at wala am na ñeent fukki at juróom fukki at paa bi na xaalisam gaar na boppaa bi sax mais xaalisam nga xaalisam moom nga nopp boppaa bi mu la woo nga fekk si am na loo xam ne tamit jigéen ñi ñoom ñoo ko war a bañ a seen bopp xale xale nga dangay def yëfi xale xam palaasi xale xam fu yem mag ñi tamit am na ñu bari dañoo ñàkk jom am na ñoo xam ne seen doom yi seen doom rek la ñuy topp jël seen xaalis di si financé moom daal kenn mënta comprendre mag na def yëfi mag mag ba demee ba am ñeen fukki at juróom benn fukki at war ngay xalaat leneen sa àdduna lu mooy def lu bon te xam ne saa boo yeewoo yow muy mag yaa ngi gën a jegu jege sa bisu bàmmeel waxtu ma laag xale yi sax dañuy saa bu yow ñu ngi jege seen bisu bàmmeel waxtu ma laag yow mag nag loolu da nga ko bu wér a wér te am na loo xamante ni waayu daf ko war a bañ ëllëg pour ay doomam ëllëg nga màgg ah ñu ne kii de doomi diw la ñu ne ah kii kay daanaka mooy loolu mu ngi noonu rek papa moo fi defoon nangam xam nga ni loolu yow benn wa ilaa tooñ nga say doom say doom fu ñu taxaw duñ mën a siggi ndax bu ñu waxee seen morom benn baat ñaar dinañ ko wax loo xamante ne nii sa papa moo fi defoon wala sa yaay moo fi defoon àdduna dafa doy waar am lu bari dañ ko war a balaa ñu siy dugg. jigéen ñi nañu moytandeku xam fu ñuy yem góor ñi nañu yor seen fulla am seen fayda mais nga gi jigéen ba xam ne fu mu fu mu romb góor woo ko mu taxaw fu góor woo ko mu taxaw xam nga ne kooku ëllëg boo ko bëgg def lu bon bu doon du nekk xale nga def ko lu bon ñu ne def ko violé def ko violé dëgg la xam nga ne kii xale la waroo tëddee moom mais moom itamit na xam ne xale la am na yoo xam ne waru koy séq ak yow. yi ñu gis Tambacounda xam nga ne lii métti na métti na métti na ba fu métti yem wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla metti na xale bu jigéen bi dem na ak métti waaye ku ko defi tamit benn tooñ na boppam ñaar tooñ na yàlla ñett tooñ na jabaram ñeent tooñ na ay mbokkam juróom toñ na ay doomam xam nga ne ko tey ay doomam dinañ am gàcc dinañ am kersa dinañ rus wax dëgg yàlla même bu nekkee ne ñoom xamuñ loolu sàmmee luñ noonu waaye seen papa tey tooñ na la en tant que kilifa bu toll nii am na loo xam ne di ko moytandiku daal si àdduna moo gën di si dugg daal ndaxte boo amee njaboot daal am na yu bari dafa jar sóoraale si àdduna ndaxte àdduna bi yàggul wax dëgg yàlla nañ delloo si seen xel bàyyi seen xel bu baax si àdduna bi loolu daal moo am solo. maaleykum maa di ziar di leen ku ci nekk yéen seen seen sant man dama seetaan ma gis numéro bi ma man am naa si benn xalaat ma ne xaaral ma joxe ko xam nga àdduna bi fi mu toll nii dafa jaxasoo dafa yàqu te góor góor rek la mën a doon jigéen ni tamit jigéen rek la mën a doon te jamono bi da ngay gis jigéen boo xamante ne nii day am benn faram nga gis mu futeeku ba set di def ay vidéo di ko ko envoyé moo far bi sori yow loolu bu nekkee def nga ko te sa far bi sori na la te góor xam nga ne góor la mën a doon te peut-être am na benn xale bu jigéen boo xam ne mu ngi ci kër gi peut-être muy mindaan mbaa muy leen nga envoyé ko moom mu gis loolu yaramam sentir loolu mu gis xale bu jigéen bu bàyyi muy dem di ko tëddee sax du ko tey beneen yow mën nga nekk xale bu jigéen am lu mat ay dix-huit ans nga nekk góor si kër xamul ko xamul la dëgg la am na jigéen ñoo xam ne dangay gis ñuy jaayu di sol lu gàtt di sol loo xamante ni mooy loolu nga ne si biir kër gi yow góor gi maanaam nga di ko charmé wu xam nga kooki tamit ñaar kooki tamit buy dem di si yow yegg si yow du ko tey ñett am na góor ñoo xam ne tamit nuñ mel dafa bon buñ génnee jigéen buñ gis mu rafet seen xel dina nekk ay kii su ko jotoon xam nga kuy xalaat loolu bu demee ba. gisul kenn fu kenn nekkul yaa moom kese ku xalaat loolu dina dem ba yeg sa kaw di ko tey ñett am na ñoo xam tamit dañoo yore feebar am na ñoo xam ne moom dañoo yore feebar moom ba am loo xam buñ ko def sax duñ ko tey duñ àndal seen xel waaw man loolu la amoon si lu ma ciy wax te góor am na noo xam ne boo ko melee te àdduna bi fi mu nii. al foo ngay ànd ak sa xel su ànd ak sa xel lu bari di nga si dugg te doo ko tay maa ngi jégalu nag si kàddu yi ab xale laa rek dama gis seen vidéo ren na xaar ma dugg si wax si sama xalaat bu gàtt rek maa ngi jégalu nag lu si jub xam ne si yàlla lu si dégg nga xam ne man la ak sama xel ak sama xalaat bu gàtt rek. Ah, Mesliwen ak yeneen ci jàmm bu baax waxe dëgg de man série bu moom ci yi ma gën a neex si théâtre ci la bokk parce que dafay wax loo xamante ni képp koo xamante ni jigéen nga bula xeroon xiiroon ci yoon bu bon sax boo nekkoon ci yoon bu bon sax boo ko seetaanee eh, dëgg-dëgg nooy bon bon bon dang si war a génn parce que àdduna dafa amul solo te ñoom seen théâtre bi day dafa neex tellement manuma sax comprendre man de ah, képp koo xamante ni man man ñang danga baax di di maanaam nekk ci yoon wu njub man damay ànd ak yow parce que jigéen amul boppam jigéen dafa war a sàmm boppam lépp luñ tiyaatar rek dafa am parce que comme ni nga ko waxee noon rek ci YouTube bi. lépp loo xamante ni dañ koo tasaare rek jigéen la parce que jigéen danga wara warmaal sa bopp xam bu baax yaay kan fonk sa bu baax a baax ba a la gis naw la parce que àdduna dafa jeex ba pare te am na ñoo xamante ni lañ lay gëmloo ak lañ gëm nekk benn bu ñu déggee nag yow ñu la defal li defal li appareil bu fekkee xalaatoo ëllëg leneen luy ñëw nga def ko ëllëg te àdduna dafa gudd tànk ëllëg xamoo lu ngeen di mujjee mu partagé la def la loo xamante ni say mbokk ku ko gis di la xeeb wala di la yedd man moom vraiment vraiment kontaan naa si li nga waxtaan si youtube bi seetaan naa ko ba jeex tàkk déglu naa ko mais yal nañu yàlla musal si seytaane rek ak gàttu fan ak euh, pexe noonu ba lépp maanaam lu ngeen xalaat rek pour di ko wax rek pour yeete rek te yàlla may leen kàttan googu ci daraja Nabi Mustafa parce que mënuma wax sax ndax sama xol bi dafa fees.